loolu day gën a day gën a rattaxal diggante bi mais également day gën a yombal liggéey bi donc dañu jàpp ne rek lu baax la li am solo rek mooy nekk nit nite xam ne tamit ci nit la ñuy liggéey nit ci ki nit kooku ñuy liggéey muy malade bi ñu fexe rek jox ko ak xam ak yelleefam gi nga xam ne moom la la la euh, moom la ñu warloo ak moom. waa xam nga Sénégal moom euh, coow moom daanaka <laughs> léeg dañ koo bëgg trop mais li li ne fang kenn du ko yër euh, li ñu wax moom moo am. am na si ñaari corps yoo xam ne dañu lakk encore une fois indi nañ leen dalal jàmm euh, def nañu li ñu war a def defe naa jébbal nañ leen euh, seen borom euh, seen i mbokk ñooñu aussi defe naa jébbal nañ leen seen borom ñeneen ñi nga xam ne ay gaañu gaañu la amoon ñëwuñu hôpital dalal jàmm mais ñu ngi woon hôpital pikin xëj na ci communication bi garantu nañu ne ñu ngi hôpital jàmm mais ñu ngi woon hôpital Pikine mais lépp rek ci système bi la. système bi li am solo rek moom mooy faj nekk hôpital Dalal Jàmm nekk hôpital Pikine l'essentiel mooy faj te gis ngeen leen wax nañu témoigné nañu. donc vraiment loolu ci laam-laamee moom moom loolu nag kenn mënu ci dara ku ñu ne jant baa ngi nii nga ne gisuma ko ah wax dëgg loolu nag ñun mënuñu si dara donc foofu rek lañu ñu mën a yam ci kàddu googu pour nous c'est une affaire qui mu ngi suñu ginnaaw li am solo wax dëgg yàlla mooy nag ñu fexe yu mel ni bañ a am am amati parce que ñu ñëpp ay mbokk lañu ñu ñëpp ay ay sénégalais lañu te kenn jóge feneen di ñu defaral suñu dëkk ñun ñoo ko war a defar ñu commencé ko nag ci gën a rek ku nekk nag war nga mën a am foofor mais nag violence bi moom war naa mën a bañ a nekk.